doon leen ma dimbi laaj ma daal caat lan moo tax nga bàyyi jóg ba may ñëw léegi léegi dama Dakar laa doon liggéey ak waa Kanam dama merbu, taxi bokk merbu ma merbu toog am benn maire bu dugg toog maire maire motel bi ba nii rek merbu maire bu mel nii maire bu dugg toog am benn paa bu dugg toog taxi ba dem bay départ am benn tubaab bu dugg toog maire bi di jëw tubaab bi naan tubaab bi nii rek ngay def da ngay bàyyi seen réew ñëw suñu réew di xat lu mu joota ba Dakar la commencé wax maire ba di wax di wax di wax di wax di wax di wax ba yaraax colo xarit taxi bi commencé sëkk taxi bi daw taxi bi daw ñu ñëw ba fii nga xam ne mooy surtout tubaab bi bëgg a wàcc na ko meer mi ne ko naan mi ngeer kon yàlla na fi yàlla saxal jàmm ci barke yonent bi yàlla seede ne dama wàcc dama tourné boo xoolee ci sedd canal bi ma yor nga xam ne maa ngi doog wàcc waaye ba euh, euh, foo fekk ni wax lu baax te nga xam ca daal wax ko te yàlla rek tax jëmm jiitoog Abdoulaye Diop yàlla na ko yàlla taxaw ci barke yonent bi barke Serigne Babacar si musuma defal dara musuma waxal dara waaye dégg naa ñu wax ci moom ay jikko yu baax dafa am benn mbir koo xamante ni ñun ñoo ko yoroon mu nekk sama koñ yàlla mi duratiwul fu mu jógee na ma caam maa ngi seeti xaw ma lan Ablaye Diop man ko xaw ma lu mu sa combat yi balaa ngaa dem làmb ñu durati la nga ne Ablaye Diop ma daal ñu ne ko noonu kooku nit la koo xamante ni nii day def dara social nit la koo xamante ni nii ñu def bëggul kenn xam ko ma romb romb kilifa gi billaahi mi naa jënd moo fi doon moo yëkkati taxaare bi di ko defal sa diggante askan kon yàlla na yàlla teral ci barke nag ñun nag ku ne xam ne ne ay artistes comédien la ñun moom xam naa looy wax a wax a wax wax bu ñëw ci ñun taxee da taxaw ndax ñu ñooy jël ci ñu xool nit ba mu neex ñu dugg ci personnage am wax dëgg yàlla def ci loo xamante ni amaana moom sax du la gis. nga xam ni dama naan c'est le directeur de cette vision.

doomu fii nga Grand Yoff jóobu jubbu bul tiit maam bul tiit foo jëm fii nga fekk baax askanu Grand Yoff bëgg la naw loola jikko moo ni mel li woykat bi di naan sa rax wëndal ci sa bopp sa yaaye liggéey lii mi affaire bi ndey ci la taatantaa ci Grand Yoff Ablaye jël na raakool bi fekk koy tool ni sukk ni gëlëm ci ni di ko ndax attanu ko waaye yéen du ngeen sax may yi di yéen daal yéen a bon yéen man sama woy di métti ci yëpp di sax may mayaan leen toog jërëjëf Assane Didier merci beaucoup ah jërëjëf dóoral dóoral yow. yërëm ak ñi doon seetaan xam ngeen ni allo Dakar TV moom liggéey ngi fépp rawatina li nga xam ne mooy social tey nag ñu ñëw fii ci Grand Yoff allo Dakar ñëw jëlale li nga xam ne mooy social li nga xamante ni si bu fi jógee rek bu ñu demee rek lu ci bare bare bu ngeen seetaanee site bi moom la muy Ablaye Diop SMD ànd koog nag waa Sonatel ànd koog li nga xam ni. moom it mi ngi nekk Sonatel ak euh, serigne bi ak Balde mi nek Sonatel wax na léegi ni Sonatel ils ont débloqué plus de 10 millions yo xam ni ngi ko jël def ko ci ay matelas ay inserteurs ay ventilateurs ngir jëmale ko ci li nga xam moy mooy détenu xam nga li nek ci ay prison Sénégal bari na waye ils ont pris quatre grandes prisons yo xam 5 prisons yu mag pour jox leen li nga xam moy bagage yi ko Dakar nag presque bari na ci région yoo xam ne dem nañ fa doo koy ñëwaat fii ci dakaar te du fi yem day gën a continuer kon jaarama Sonatel <coughs> Sonatel nag muy société boo xam ne Sénégal gi ñun ñëpp ñoo ko bokk tey bu wëlbati koo def ko ci lii li li mu jëlee ci askan wi rek moom la delloowaat ci askan bi kon jërëjëf waa Sonatel waaye jërëjëf Abdoulaye Diop loolu nag moom la Allo Dakar ñëwoon di leen jël di leen ko indil di leen ko dicteur pour ñëpp mën koo xool su ko defee dañ leen bàyyi ki nga xam ni mooy nag le directeur mooy kan l'homme au social mooy kan doomi Grand Yoff mooy kan ki nga xam ni ba mu juddoo ba tey nee na man fàttalikuma foo xamante ni si nit ñëw na wax ma soxlaam ma man ko te defuma ko koo xam ni tey bu ñu wax artiste Sénégal rawatina Grand Yoff xaar yàlla bari na ñu bari tey fu ñu àgg rek grâce ak moom lañ bari na tey des politiciens yoo xam ni tey am nañu ndombal tànk ci réew mi maanaam yor dara ci réew mi di def di dindi waaye ba ñu tàmbalee ci moom mi lañ ñëwoon moo leen teral ci yoon bari na fi tey ñoo xam ni ci wàll bu ñu waxee culture wax sport tey xam ngeen ni Grand am na mbër mu mag mu fi nekk ñu koy wax Fourière donte miinuñu ko sax waaye gis nañ ni ay mbiram yëpp bokk na ci tey le ab Ablaye Diop jàpp ci ay mbiram ba mu dem ndax nee sama wala sama doom la loolu nag la leen Allô Dakar TV doon leen indil jërëjëf salaamaaleykum mbooloo mi ci teew yëpp ku nekk nga xamee maa ngi tudd Ramla Fall dëkk Grand Yoff en fait damay wax si turu ndaw ñi maanaam euh, yàgg na parce que duñ ne guleen parce que ñun ñu mën a jëlee ak fu ñu mën a yóbbee moo tax ba mu ñëwee carrément ñu xam ne ne carrément ñun jeunesse ku ñu jàppale ku ñu appuyé ku ñu dooleel kooku lañ soxla moo tax ba mu ñëwee ñun jeunesse bi dañoo daw ci ginnaaw te ba ñu àndee moom ba léegi rëccu wuñ ko rek parce que bu fekkoon ne ne leneen la kenn du ànd moom mooy wax dëgg yàlla ku ne Ablaye Diop rek dañ naan Ablaye Diop mais ñun dañ naan Diop social parce que képp ku ko xam xam ne ne carrément c'est dans le cadre social fa lay dox di ci wax ne jii ñoo ngi koy ñoo assisté ko carrément te Ablaye Diop jeunesse bi de sant nañ la gërëm nañ la te ñoo ngi lay yàlla li nga mën ren jii yaa nga ko te yàlla bàyyi la suñu kanam rek ba nga xam ñun ñii fan lañ la mën a jëmee sant nañ la ci gërëm nañ la ko baax merci wa salaatu wa salaam ala sayyidina wa mawlana muhammad wa ala kulli alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmi din asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw ñu sant yàlla jur Seydina Muhammad ñu ngi leen di nuyu ñi ngi nuyu ñaar rek la ñuy nuyu mooy ñi ñu ngi ñi fi dëkk ñëpp ñi ngi leen di nuyu ñi fi dikki tamit ñi ngi leen di nuyu. tabarakallah di leen ziar bu baax a baax di leen balu àq nag di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yàlla nangu dafa naa ni yi sax matu ko woon Assane bu waxee rek wax na lépp. waaye dimbalante yàlla moo ko njëkkoon dama ne wa taawanu alal birri wa taqwa ngeen dimbalante si def lu baax te kii ngeen di wax rek dafay dimbale nit ñi si baax boo gisee ma jël kàddu gi wax sax du man maa tax ma wax waaye dafa am loo xamee daf ñu ko defal waa daf ñu ko defal ñun daayira bi nga xamee ni fii laa nekk si moom laa yore daayira bi imam Babacar Dia di imam jumaa ji nekk sunu président daayira bi tabarakallaahu ren bi ñuy def suñu conférence fii lañ koy defee at mu jot fukki at ñu koy def fii at mu jot ñu def la ren biñ koy def fii biñ ñëwee wax ak moom gis ko defe ni ma maa ñëw wax ak moom fii si kaw mun nga conférence bi ngeen def lépp loolu lañ soxla si matériel bàyyi def man maa ko maa koy lépp la wax si matériel bu kenn joxe dara lépp matériel yëpp maa koy joxe moo joxe bâche yeeg siège yeeg podium lépp moo ko joxe muy benn ñaareel bi ñii dem gamu Tiwaawan jii ñu jógee rek ma woo ko téléphone man maa ko woo téléphone mu ne ma maa ngi si yoon sax maa ngi jëm Kaolack fekk man maa ngi Tiwaawan man ko booba léegi ñu ngi la bëgg a gis ñun ñoo gisee waaye ñu ngi nii dem gàmmu bi mun ma bul wax dara noppi dinaa am numéro yónnee noonu la def orange moo ne ma xaalis bu bëri ñu ngi nii loolu loolu mën nañu wax si saa dimbalante ba muy def loolu la ñuy def ba dem jàppale ci kaw Ablaye waa Daara yi xam ne waa Daara yi surtout Daara yi laay wax ñoom ñëpp ñu ngi lay gërëm di la sant ñàkk keroog ñëw naa fi askan naa ko pour mën naa yi dana xaw a occupé moo tax recevoir wu kenn man dañoo bëgg nag mu recevoir Daara bi ñu toog a moom sant ko si li nga xamee ni moom la ñu defal comme que nag lii occasion la moo tax ma ne xaaral ma profité rek waxaale ko benn man Ablaye ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla. que Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën wax ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever.